bisimila xibaar yu bare yitteel yéenekaay ci talaatab tey ji benn fanweeru octobre atum yor yor bi yeggee ñu waxtaan wu yaatu wu njiitu réew mi Bassirou Diomaye sekk waa Al Jazeera ca boobaleb waxtaan président de la république ne premier ministre Ousmane Sonko ma ngay liggéey ak efficacité loyauté engagement ak abnégation Bassirou Diomaye Faye naan lu jaadu la premier ministre nekk au premier plan en tant que chef du gouvernement maanaam Diomaye daal nee na Ousmane ma ngay doxal ca le quotidien moom président Bassirou Diomaye sama liggéey lay jël di ko liggéey nanu xam ne la ñuy wax tegwut fenn waxu ku daanu ci sareet la ndax moom Sonko jomaay nee na la ko war dong lay def en tant que premier ministre moom Ousmane Sonko point actu gis ko seul contre tous maanaam moom kot moo war a janoog ñépp ci élection législative yi ñu dëgmal point actu foofa la jaaree xamal ñu ne Macky Sall mooy tëdd liste takk wallu Khalifa Sall mooy jiite liste départementale bu Dakar Pape Djibril Fall Thierno Alassane Sall ñoo koy doxal waaye Macky Sonko moom Vox Populi ne deuxième round bi dina am ci élection législative yi journal booba Amadou Ba Amadou Ba Barthélemy Sonko Sud Quotidien naan législative yi kay lu ne mën na cee xew les législatives de tous les possibles la ko yéenekaay bi tudde wax ci confrontation bi nara am diggante intercoalition opposition beeg Pastef yéenekaay bi yéegee ñu ci leerali Amadou Serigne Thiam enseignant chercheur ca faculté des sciences juridiques et politiques bu UCAD mu ne intercoalition bi lu baax la waaye nag esprit de vote sénégalais yi changé wul Pastef bu rëy ci pastef mi dem moom kott ci élection législative yi les éco mel ni ku naan intercoalition booba sax da koo a dëgër ndax Amadou Ba rocceeku na ca takku walloog sàmm sa kàddu journal bi ne ñoo déggoo ci département yépp ak diaspora bi booba lépp journal xibaar ñu ne sàmm sa kàddu fuuta gépp la bàyyee Macky Sall l'observateur dugal ñu ci secret liste législative yooyu ñu tëgg ba noppi yéenekaay bi ne Macky Sall mooy tëdd liste journal bi ne sàmm sa kàddoog takku wàllu Sénégal nag takku nañu a dëgër ci département yépp ak diaspora bi yéeni kaay bi ne dañ faa ànd jàmm ak bu Amadou Ba yéeni kaay bi ne ci yenn gox Bamba Fall ak Aliou Ndoye it yéeni bi ne dileem lañu ci Amadou Ba journal booba xamal ñu ne Lat Diop ak Cheikh Oumar Anne ñoom ci liste nationale bi lañu leen investir Woré Sarr ña nga yëgle ne ca Abdoulaye la mujjee teere ji Le Soleil ne 45 liste ñoo ñoo war a parti bi bu ñu leen dëggalee ndax tey jii la ñuy examen juridique bi parti AG jot na moom yéeni cabinet législative yi yëngal na ko ndax maître Moussa Diop a metti ba nga xam ne dañoo joxoon mandataire ba liste ya mu ne mes ak moom waral ñu porté ko plainte yéeni cabinet waaye kenn jaa jaawalewut kenn nit juumut ci ay liste na mu amee woon 2022 benn confusion yéeni kaay nemmeeku ci législative yi mooy noonu démb yaay xaritu tey yéeni kaay tuddee ko alliance contre nature lépp jëm ci élection législative yeeg ndam li opposition bi bëgg ci kanamu Pastef booba lépp opposition critique naan dee bañ instinct de survie fi ne moom la am moo tax muy jéem a lëngoo ka ànd ci élection législative yi waaye ànd booba le quotidien bu ma jambal

Sénégal yéenekaay bi ne jubluwaay bi bokk na ci remonter le moral aux troupes maanaam dalalaat xel soññi waatit militant yi waaye campagne moom yéenekaay bi ne wóorut Macky def ko bëgg na itam moom Macky Sall jël revanche ci Ousmane Sonko waaye xeex bi dëgg yéenekaay bi ne mooy leeral digganteem ak Amadou Ba ana moo ci moom yi Benno Bokk Yaakaar amoon ci élection présidentielle bi nu weesu élection yii di ñëw nag ndax Barthélemy Diaz mën nañ ko mën nañu koo fal wuuteeg li Ibra fay docteur en droit wax ndax moom nee na mi Dias dafa inéligible maanaam kenn mënu koo fal ndax yoon da koo mujjoon a daan ci mbiram Njaga Juuf jéegi Jóob mi ñu woolu ci kanamu yoon yéene kaay boobaa ñu yëgal ne tey jii bu 11h jotee dana dem ca division des investigations criminelles source a nenu jéegi Jóob a dañ ko doon wër démb ba fësal ab avis de recherche ak mandat d'arrêt yéene kaay bi ne waaye signalé wu na ne ma nga ca kër Njaay Loo dawu daayu vox populi ne jéegi Jóob signalé wu na ca kër Njaay Loo démb la ci vidéo ne mës sa daw mi ngi këram bu ko soxla soxla xam nañ fu nu koy fekk yéene kaay bi ne waaye tey jii sax bu 11 heures jotee dana dem ca dik ca l'observateur jéegi wuy ji booba yéene kaay it xamal ñu ne ña agressé woon ab waa ji yoroon juróom benn million ci saaga nangam ca HLM 6 bëccëgu ndar kàmm atte nañu kenn ca ñoom yéenekaay bi ne juróom benn weeri kaso la ko daan Kader Dia bu TV Libération waxtu woowu naan ñu garde à vue nañ ko ngir diffusion de fausse nouvelle tey jii la koy defeere ca kanam procureur douane ak Coris Bank waxtu woowu journal ba ne ñu xëccoo milliards yu teg yéenekaay booba ne douane 315 milliards lay fayeeku Coris Bank di ko laaj lu ni toll ngir amande Ibrahima Khadim Babou Lok Afrique ci benn dossier booba yéenekaay bi ne waaye retour de parquet la ñu mujjee am Aïda Mbodj moom journal ba ne jamono ji ma ngay rëbb ña deer lebaloon xaalis ñu lànk fay moom njiital deer mu naan dañoo am obligation maanaam wareef la ci ñun ñu jëlaat boobaleb xaalis séddalewaat ko askan wi laas moom di ñu yëgal ne coow li fayagut diggante Bocar Samba Dièye ak CBAO yéenekaay bi ne luy ëpp juróom-ñaari milliards jëlee nañu ko ci compte commerçant booba Babacar Diagne moom nekkatul njiital CNRA yéenekaay booba ne na ba tàggatoon ak ñem doon jëflanteel ñun ñu tàggoo leen foofa dalal ak jàmm dig daje ëllëg incha allah.